merci Bijou que ñu ngi koy nga xamante ni mooy journaliste sénégalais yi tey dañuy dañuy dañuy amal benn dox boo xamante ni ko amal tey ci 15 heures fële ci diggante place de l'Obélisque ak euh, rond point bu RTS li ñu jub rek mooy tey journée mondiale de la liberté de la presse euh, gën a wax ñoŋal li nga xamante ni mooy travail journaliste yi surtout reporters yi parce que dañuy wax ni chaque à chaque fois euh, reporters yi nga xamante mooy patron de presse ni ñu leen war a gën a mën a jàppe mm. jàppewuñu leen ko ba bañ ba ci code de la presse ñu koy gën a mën a ñoŋal am solo liggéey ci réew dafa am solo surtout nag di wax ni marché bi fépp la du ñeneen du rek Dakar parce que ñi nekk ci région yi aussi dañ ci parce que correspondant yi dañuy toujours dañuy wax ni seen jafe-jafe yi dafay dafay dafay voilà dañuy am ay jafe-jafe hmm? ñi nga xamante ni mooy defal seen liggéey bu mu waree voilà euh, nekkul li nga xamante ni yomb tax liggéey journaliste vraiment nekkul lu nga xam ne liggéey bu bu yomb la ah, bi certes Sénégal maa ngi koy wax sànq mën nañu wax ni am na amul benn journaliste actuellement bu ñu tëj ngir ci ci métier am vraiment loolu la côté boobu am na ci solo mais mais yi li nga xamante mooy euh, Sénégal tamit amul nga xam mooy journaliste partisan maanaam yeneen dëkk yi koy Côte d'Ivoire wala yeneen dëkk yi nga xam ñii mooy journalisme républicain moom mën nañu ko jàpp parce que ñoo xam bariwul ay far far ñii far fii tout à l'heure voilà nekk na ci lu am solo kon tey moo nekk 3 euh, mai nga xam mën nañu jàpp ni moo nekk journée internationale de la liberté de la presse xam nga bu fekkee ni journaliste Euh, mettre na ko dans de bonnes conditions. ger ko dafa yomb waaw boo seetloo ba ci correspondant yi li ci bëree bëri am na ñoo xamante ni. lu leen arrangé wul duñ ko mën a wax <laughs> mais journaliste. liggéey bi muy def dafa am solo ci réew ndaxte mooy informer population bi. Mm. te de ce fait doit informer juste et vrai. voilà mais euh, partisan mais mais partisan daal mooy moom en général euh, boo seetloo da ciy xaw a rax. Mm-hmm. te te bokkul ci ci wàllub journaliste. parce que ñoom ñoom kooku juriste yi dañuy waat quoi ñoom. Mm-hmm. dañuy naan euh, dañuy éthique waaw ak médecin donc. mais nag bon à un moment donné comme lu ñuy wax li ko suuxat moo ko sooxee malheureusement ni ñi nekk ci nit ñi soxla manipuler population bi mhm. ñooy dem ger ñooñu tu vois parfois sax mën nañ la bañ a guerre xaalis mais le fait que tout le temps ñuy ànd ak yow mhm. tout le temps da lay influencer mhm. waaw waaw ndaaw ah ndànk rek ñoom bu lay piqûre nag du la ñëw rek jox xaalis non non non da lay invité mon cher nga ñëw ngeen jël café mu yóbbu la ci bërëb bu kawe nga toog climatiseur bi di la ëpp ngay liw liw sa yax di karam ngay kat kat moom la ñuy wax tegal la miss bi sa xel commencé gars nga naan sama waay sama xarit bi kat non seetu sa xarit boo ñëwee dong lay lu ma naroon bind bàyyi naa ko waaye nga <laughs> mais loolu wax bu fekkee condition ñi nga xamante ni mooy reporter yi wala journaliste yi nekk nañ nga xamante condition yu baax la yoo xamante ni tane la mais nekk na nga xam ne ñeneen ak ñeneen condition ñu yàlla ñi ponkal yi condition yi ñu ger leen pour ñu ger leen du nekk lu yomb ko wallahi wallahi wallahi Badio booy dem ñun ñu leen bon tu me salues la famille s'il te plaît mais avec plaisir oui son excellence bu nga ne ko yaaram kala te ñu ngi def marche et j'espère que bi ba di ngeen dem yéen ñaan ñoom mémorandum bi dem dañuy dem dañuy dem man ak Ndiaye donc euh, j' espère que à partir de là dina am ay solutions yoo xamante ne nañ ko apporter vraiment ci li leen métti parce que tamit c'est sen liggéey c'est un travail vraiment noble merci beaucoup ci euh, li ñu indil tey ci yeewu leen bi bi ngay wax am na yow tey loo ñu andil man dama ci wax